j'aimerais avant tout saluer tous les composants de la lutte présents et les féliciter pour leur courage à l'effort du plan de riposte contre la coronavirus. Bonjour au de la lutte. La pandémie a touché et affaibli les économies de les pays. Au Sénégal, malgré le taux important du nombre de contaminés, l'État sous les autorités de son excellence monsieur le président Macky Sall a mobilisé tous les Sénégalais pour combattre la pandémie. Ce qui a permis de réduire considérablement le développement de la maladie. Le secteur de la lutte a été gravement impacté. Nous sommes restés dix mois au chômage. Ceci a eu des effets sur nos familles Raison pour laquelle le CNG doit en place un protocole sanitaire. L'État doit subventionner la lutte en achetant les droits terrain comme le fait durant <coughs> déjà fait en montant des combats La lutte est notre espoir national, donc l'État a le devoir de nous accompagner, de nous accompagner plutôt, étant donné celle-ci, c'est un métier dont les, dont les milliers de Sénégalais y vivent. Nous réclamons beaucoup plus de considération vis-à-vis de l'État. Car dès le début de la pandémie, M. Macky Sall a reçu au palais de la République toutes les forces vives de la nation, les musiciens, les politiciens, les sociétés civiles, j'en passe. Monsieur le Président de la République, nous, nous tes serviteurs, avons besoin de ton aide pour réouvrir les arènes. Une ouverture qui cadre avec vivre avec la pandémie. Lancé par le Président et inciter les grands sponsors à devenir collaborer avec les promoteurs. Il urge pour l'État du Sénégal de préserver et considérer les acquis du de la lutte qui avait pris un, un, un extraordinaire grâce au dynamisme du M. Matar En somme, les acteurs de la lutte sont des personnes responsables qui, vivent, qui, qui peuvent exercer leurs activités tout en respectant les mesures barrières. loolu laa woon tënk en français waaw pour ñu jàll ci olof avant tout damay nuyu ñëpp teew fii di kontaan bu baax a baax a baax parce que ñëpp teew boo ñaa kontaan na de waaye sama confrère lutteur yi teew loolu moo ñu parce que jii nag pour ma jox leen ku nekk sa wàccuwaay dama leen nuyu di nuyu suñu mag suñu lépp suñu doyen suñu grand Pikine suñu royukaay suñu lépp muy Eumeu Sène le grand champion ma koy nuyu di ko ziar bu baax kon li ma ko wax chaque jour rek ma ne ko mu woo puso bi mu réer mu lay sant di la gërëm bu baax. di nuyu suñu doyen bi nga xam ne moom Seck le grand champion Papa Sow di ko nuyu mu ñëw teewal fi Modou bu ñëwee Modou la ñëw bu ñëwee Franc bi ngi ci ngi koy ziar bu baax Goro Sock maa ngi koy nii le grand gëm sa bopp suñu commerce bi nañ dafa mbër mbëru xale yi mbër bu sox xarab bi ma koy bëgg bu baax la di nuyu sox suñu frère suñu doom nañ ñu ñëpp di nuyu yi nga xam ne ñëwul parce que am na loo xam ne foo ma leeral ko sama téléphone amul mbër bu mu bàyyi ku ci nekk man koo ñaan par rapport li ma gis jot naa sama téléphone woo tous les soxla yu bari am na ñoo xam seen xel yi fi fii sax waaye ñëwuñu waaye seen xel a ngi mais ñii bu ñu ñëwee rek ñëpp ñëw nañu donc rafet na ñu ngi gërëm ñëpp ñuy ñëpp ñuy suñu papa yi nga xam ñoo nekk suñu ginnaaw ancien gouroir yi ñun buñu bëgg làmb